procureur tey aujourd'hui Ousmane Sonko accuse les FDS de tentative d'assassinat mm -hmm. il a même donné les caractéristiques du du du, du, du produit bi ñu ko def et ce que ça peut mhm. euh, ça peut provoquer mhm. donc bu ñu tijjee une enquête mm pour élucider cette affaire là mhm. euh, comme ni ñu koy defee quand il y a un crime ou une tentative euh, d'assassinat. Euh, mhm. comme ni ñu de defee avec la la la la Sonatel. Mm -hmm. est-ce que les médecins peuvent continuer à invoquer le secret médical est-ce que le médical mënul permettre d'élucider cette affaire. Mhm. Ah, je n'y a pas eu euh, vraiment de mort d'homme. Mhm. on est tenu à, le garder. maintenant nag il y a une chose très simple qui est de prendre un autre médecin. d'aller discuter avec le dossier. et ce qui va se faire même avec des experts. Parce que plus tard, on va désigner des experts, le tribunal va désigner des experts qui va lui poser des questions précises. À quelle heure ce produit lui a été administré, euh, quelle est la quantité qu'il a été administré. Ça, tant au niveau des laboratoires qu'au niveau des médecins qui l'ont soigné, il y aura des experts qui. mais on s'arrêtera xam nga dossier médical li ñu koy bañ a mais c'est que am na yeneen yoo xam ne da nga ma koy wax fekk bokku laa sa bopp buy metti tey xam ne. ça n'a rien à voir. wala c'est trop intime wala c'est trop cric yoo xam ne eh, jabar wala jëkkër. alors ah, moom dam na waaye yaa ah. mm-hmm. jabar sa jëkkër sax xamuñu ne xamuñu li nekk ci. am na lu ñu donc moo tax ça a été ça a été protégé dans le monde entier. le secret médical c'est comme euh, l'ambulance c'est universellement protégé ah c'est Israël yi gën a soxor bu ambulance yi jàll ils ne tirent pas dessus. vous comprenez l'importance. Mhm. affaire bi amee j'ai j'ai consulté un, un, un avocat pénaliste hein. Mhm. il il dit que dans deux cas la ñu mën a lever la mhm. sacralité du secret médical dans le cadre d'un d'une transfert de de données de structure à structure voilà mooy médecin mën na ñëw voilà mën avec des questions précises mais de savoir qu'il est asthmatique comme il a lu dans le dossier suñu dossier boobu sax il faut ñu defaraat ko sur la première page on va plus mettre les antécédents mm. on va les mettre à l'intérieur du côté médical oui c'est ce que je dire donc affaire asma boobu sax waru ko woon a xam. alors cas bi mu ne euh, c'est dans le cadre d'une personne qui ne sait pas se défendre par exemple un enfant boo xam ne viol nañu ko. le médecin est en droit yéen yéen ay déclenché la gendarmerie pour déclarer que il des actes des actes hors hors nature ou hors kii kooku c'est nous-mêmes qui gérons on a une obligation de protéger en enfant. Mm-hmm. bu daanu ñaar yoon loxo bi toj papa ñëw ne ah dafa daanu rek. il y des fractures qu'on sait des fractures de. suite à des coups ou de sévices wala ay dóoraate ñoo koy indi. mais à part ces deux cas là. Mm-hmm. Euh, yow le troisième bi ma xam. mooy bi euh, ban la. dans dans les crimes. dans les crimes c'est-à-dire. dans les crimes rey nit ko c'est-à-dire. rey nit bu ñu rey. nit bu ñu rey bu ñu enquête dossier boobu. Mhm. le médecin doit contribuer à la vérité. Mhm. donc tey supposons bu nekkoon Ousmane ko tey affaire bi daf ko atteindre. Mhm. ba mu nekk ci yenn situation yi. Euh, dans ce cas-là di ngeen transmettre. les informations même loolu ñu àgg foofu famille bi déjà famille bi ak euh, am nañu droit ñoom xam li nekk ci dossier bi. mais l'enquête déglu ma rek famille bi ma loolu doo àgg foofu doo àgg foofu c'est pas bu état ñëwee di jéemee xam mënul xam tout de suite mais les proches les légalistes de ñuy bokk ci famille yam mën nañ ñëw ne la docteur sama yaay bi euh, wax ma lu mu gaañoo oui oui c'est-à-dire et là on leur fait un médical de nous ce qu'on sait mm-hmm. ñëw nu fii tel jour nee na dañ ko sorti benn produit euh, mu ngi doon nooyi nooy bi baaxul woon defal nañ ko oxygène Euh, tension bi wàccoon na defal nañ ko perfusion nee na dañ ko empoisonné am na benn système antidote bu ñu am léegi qui est très efficace ça s'appelle la diurèse osmotique defal nañ ko diurèse osmotique loolu c'est très simple mooy bu poson nekkee à cinquante euh, lay lay reyaate nga wàcce ko mu nekk mu nekk à trente te koo xamul lu ñu koy defee ndox. ndox <laughs> ndox. Mm-hmm. sa yaram bu ci benn poison nekkee à cinquante à une toxique de cinquante bu ñu la perfusé deux litres ndox dootu nekk cinquante. ah kooku mooy diurèse osmotique dañ lay sawloo di sa ndox kooku déjà ça peut aider sur la plupart plupart des poisons. des cas d'empoisonnement voilà. donc famille bi ngeen di informer et pas la justice. non famille bi mën na ñëw. Mhm. nañu sama yaay bi sama papa bi defal ma certificat médical. comprenez famille bi vont se réunir on va définir euh, une personne légale ki le représente légalement. Mhm. koo xam ne demee bu fekkoon ne moom moo wax kooku li muy wax benn lay woon kooku Euh, kii gaañu wala kii am ay problème te mënul wax cette famille là on peut leur attester faire avec présentation de leur carte d'identité vérification de leurs liens familiaux avec le malade defal ko certificat médical buy wane ne euh, tel jour sa papa ñëw na fii noonu na li yàq lii la am defal nañu analyse analyse bi wane na que xaw ma

avec des euh, experts aussi. waaw bu ñu tijjee doon tuñ ci dara. laboratoire bi tamit bii foogoon ne fekkoon ñun ñoo def analyse bi laboratoire bi tamit dañu dem laaj ko laboratoire dañu jox résultat yi déjà. Mhm. à partir résultat yi la wax ne ah kii day bu ñu xoolee suñu livre de toxicologie am na benn livre bu mag boo xam ne produit bu ñu la wax boo ko ci xoolee ñu wax la ban dose lay reyee ban dose lay euh, lu muy def ci nit loolu loolu yëpp tamit yor nañu centre antipoison te boo leen ooree heure bu leen neex nga ne leen époxy de xaw ma li mu waxoon bi passé di hmm. te doon ci alors moom jël na euh, yére yi fair analyser ko à l'étranger hmm. euh, parce que nee na wóolul woon fii wóolul euh, wóolu bëgguñu ko woon defee fii amul laboratoire bu ko mën a def mais nee bu buñ ko fi defee woon parce que. ils ont appris que am na laboratoire yu ils on peut pas ils ont appris que la euh, euh, la police a fait le tour des laboratoires pour demander est-ce que déposer nañu foofu voilà yére bi ou déet donc mais résultat yi mu am. ak procédure bu mu def. Hmm. ban valeur euh, médico légale la am. waaw ah, moom nee na am na caméra bu fa nekkoon bu filmer ñi ko doon def. non man je je m'adresse moom nee na nee na non man je je je m'adresse au médecin bi génn naa doon jéem wax affaire yooyu dañu ne ma dafa mel ni léegi da nga contre da nga contre sa pros da nga contre hmm. pros xanaa bokkatuloo ci pros. <laughs> parce que ci moom nga bokk non parce que j'avais dit. militant la. <laughs> ah ku wax loo xam ne yaakaar naa ko te nga dëkk bi. Ah. waaw Macky lu tax ñu voteel ko. Macky 2011 la ñu ko voteel ku wax loo xam ne. loo xam ne si yaakaar nañ ko. yaakaar nañ ko bëgg dëkk bi dox. Mhm. ñun médical bi on a la corruption à fond man bi ma ñëwee Sénégal yéen yëgu leen ko euh, corona ngeen ma xam. mais daal du ma laaj li Bolloré Bolloré il est dans le médical booy soigner benn benn malade fii à l'hôpital euh, dans un hôtel xam nga Bolloré moo lay fay. Mhm. est-ce que ngeen loolu <laughs> le groupe Bolloré qui est moo lay moo lay wax dama consulter euh, le tubaab tel dans tel hôtel. ñu mm. ngi la war a fay cinquante mille mais dama siy dindi vingt mille franc jox la trente mille kooku maa ko jëkk kaas fii Sénégal fii Dakar boo demee yaa ñetti assurance yoo xam ne dañ ma radier. parce que dañu leen xaalis ma yóbbu leen ba yow da ngay bu mm-hmm. leen yóbbu ma rek. leen ñu radier ma. may xeex léegi avec euh, la compagnie des assurances nee na un service d'urgence on n'a pas le droit d'empêcher des malades d'y aller parce que gis nañu ni may waxee ne non assistance kenn ku ñëw euh, bokkul ci assurance bu agréé kooku bu bu ma ne ko du ma la faj teg la noonu mooy dal man j'ai pas le droit de refuser un malade quel qu'il soit qu'il soit assuré qu'il soit pas assuré donc non on a ce stade là. mais actuellement il des compagnies d'assurance qui nous ont radiés sur la liste. non dinañ ñëw sur la sur la de santé pour te dire que ça fait longtemps qu'on se bat contre les choses anormales au Sénégal ñu ngi wut benn président un jour bu ko fii dindi. Hmm? tey am nga na tey que am na ku lekk 92 milliards yóbbu na ko plainte nañ ko ba xaalis bi nar na ñëwaat mais kooku bu naree continuer noonu c'est ce qu'on cherche.